yegsi nañu ci xibaaru yéenekaay yi yéenekaay yu bari xëyandoo tey njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu soxal euh, mbirum Caaroy 44 mi ñu fas yéene màggal ci lu yàggatul juróom-ñetteelu fukkeelu at gannaaw la xewoon ca Caaroy yéenekaay bi ne Walf euh, Quotidien di ñu xam leeg njiitu réew mi mi xam le na tey lu ko euh, soxal mooy fexe ba mbir yi leer la jotoon a am ca googule bërëb di Caaroy 44 nañ ko leeralal askan wi sàkku na ko ci réewum France ak képp koo xamante ne war nga cee mun a gindi askan wi ca la fa xewoon yéenekaay bi di l'info ne njiitu Bassirou Diomaye Faye wax na ay déggam waa France xamal leen ne itamit euh, jot na euh, lettre gu jógee ci Emmanuel Macron jiitu réewum France mi xamle ne la xew ca Caaroy 44 massacre la maanaam dañ leen a boom yooyu de tirailleurs yu Sénégal ba tax na jot na nag ñu càmbar googu lépp euh, dossier fàttali tamit ne senegal tey bu demoon ca France doon fa ay soldaaram ak ay tenues ak ay ngànnaayam naka la waa France di ko gisee ba tax na taxawaayu bu France fii ci Sénégal njiitu mi ne ñu ci bàyyi bàyyi xel say bu dogal jotee dañ ko yëggee eh, kilifa yi mu ngi ci eh, yéen a bi di l'info njiitu réew mi fàttali ne Sénégal jël na indépendance am bu yàgg ba tax na nag indépendance googee war na law fépp ci réew mi ba Sénégal mun a demal boppam moom boppam ba faw mu ngi ci yéen a bi di eh, l'info yéen kaabidi sur di Sud ñetteelu ndaje gu ñu jagleel daara jot nañ ko amal démb njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay sàkku ñu amal assise nationale des daara fexe ba nees mun càmbar jafe-jafe yi tënk daara ngir gën koo ñoŋal mu ngi ci euh, yéen a kaabi di euh, Sud euh, Quotidien yéen a kaabi di 24 heures ne ci googuleem daa ndaje jur na sax ay convention yu bëri yoo xamante ne nguur gi bëgg na ko cee amal jaare ko ci jor ngi ñu dénk wàllu njàng meek njàngale mi ministère des forces armées ki yor tàggat yaram ak formation professionnelle ba ci wàllu mbéy mi lépp nag ñu fas yéene cee taxawu daara yi ngir gën leen a dooleel mu ngi ci yéen a kaabi di 24 heures yéen a kaabi di las mu ñuy dégtal accord bi doxoon diggante nguurug Sénégal ak Union européenne docteur Fatou Diouf di jor ngi ñu napp mi wax na ci daanaka suddi na ci ay ay mbóot ci yooyu de accord ak la ca la xas woon mu ngi fàttali ne sax am na accord de pêche yoo xamante ne diggante Sénégal ak Union européenne Sénégal waroon ca am lu toll ci fukki milliards waaye nag ci mujjanteel gi juróom-ñaari milliards la mujjee am milliards ya des am ana fu mu féete doon lu yitteel docteur euh, Fatou euh, Diouf mu ci euh, yéen a kaabi di las yéenekaay bi di yor-yor gi di ñu scandale euh, foncier goo xamante am na corniche des Mamelles euh, soxal euh, terrain gu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeenti hectare njëg ma waroon a toll ci téeméeri milliards te moo ne de ñaari milliards donc la ko nguuruk Abdoulaye Wade ga woon jaayee société Xarafi mu ngi ci yéenekaay bi di yor-yor gi yéenekaay bi di Le Quotidien di ñu dégtal ay dogal yu tukkee ci wàllub yoon bëccëgu démb daanaka tribunal la fa tukkee Moustapha Diakhaté yoon daan na ko ñaari weeru kaso yu kàddu yu tegginewul jaarale ko ci xarale yu bees yi te kàddoom yooyu la mun na dem ba nasaxal jàmmi réew mi Cheikh Thiam ak kàddu yamu jotoon a yëkkati ci géeg politique bi jural na ko kaso benn weeru kaso Samuel Sarr moom fanaan nagu guddeem bu njëkk ca kaso ma nga sous mandat de dépôt ñu koy atte mu ngi ci yéen a kaa bi di euh, le quotidien yéen a kaa bi di réew mi quotidien xëy fësal nataalu Moustapha Diakhaté ñaari weeru kaso lañ ko daan demb dogal googee nag jëm ay kaddu yoo xamante ne jotoon na ko yëkkati eh, fan yële ñu weesu te ñu ne kaddu yooyu le rafetul yéen a kaabi di turbine am taxaw seetlu eh, ci mbirum Samuel sar mi ñu yóbbu su mandat de dépôt yéen a kaabi gis ne man politique la maanaam politique moo laxasu xasu eh, ci mbirum Samuel Sarr ndax kuréel gamu jiite daanaka ñam ca ñam ko seqal am na ci ñoo xamante ne bëggatuñu Samuel Sarr jiite googule West African Energy mu ngi ci yéen a kaabi di turbine yéen a kaabi di le mandat di ñu jàngatal état civil yi jafe-jafe yi ci ne yéen cabinet ci xayma téeméeri sénégalais yoo jël ñaar fukk ya kenn déclaré wu leen ca état civil mu ngi ci yéen cabinet di le mandat yéen cabinet di point actu di ñu jàngatal installation assemblée nationale njiitu réew mi jël na dogal jaare ko ci ab décret ne altine gi ñu jëm dañu samp assemblée national gu bees bi yéen cabinet assemblée googee nag kan moo ko war a mun a jiite ndax Ousmane Sonko day des ca primature waaye la boog day dem jiite ji assemblée bu ko jiituwul ndax du El Malick nar a wutu yéen cabinet mun nañoo séntu itamit euh, fi leeg ay heure fi ay waxtu euh, démission gouvernement bu euh, Ousmane Sonko ngir ñu sampat geneen bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci conseil des ministres gi weesu mi jot a jaajëfal gouvernement bi Ousmane Sonko jiite yéen cabinet di le témoin xëy duñu dégtal géeg politique beeg na mu bindoo bees am na fi ay parti yu ñu jotoon a xam ci jamono daanaka ñu ngi bëgg a naxasaay ci géeg politique bi seen doole demeetu ni parti socialiste dooleem wàññeeku na PDS dooleem wàññeeku lool AFP dooleem wàññeeku réew mi bu Idrissa Seck dooleem wàññeeku PIT LDMPT AJPADS yenn cabinet yooyu les parti ñu ngi ci yoonu jël seen retraite ci géew politique Sénégal yenn cabinet di sursa jeexale kook Euh, publication tey jii média yi nga xamante ne ñoo euh, tënku ci code de la presse yéen cabinet nag euh, xayma gu yaatu ak gëstu bu yaatu lañ ca def ba tax na jëwriñ gi ñu dénk wàllu communication dina gindi askan wi ci yan média ñoo aw ci yoon fii ci mim réew am waa Sénégal di nuyu waa diaspora Serigne Cheikh Sarr le marabout voyant moom laay woowee the king of the ki yàlla may xam-xam ci wàllum faj nee naa la foo teg sa loxo mi xasan bu fa bàyyi fii la lépp di leere borom seet bu leer bi Serigne Cheikh Sarr le guérisseur des maladies nee naa la hémorroïde ulcère prostate lépp ci gàncax ak ay reen cataracte glaucome ak bépp jàngoro bu nekk ci nit duñu bàyyi ndoxum siti bi sonal ñépp wóotal ci numéro bi gaaw ngir mu saafarawu 77 035 54 57 wala nga woote 77 736 76 21 Serigne Cheikh Sarr nekk fii ci diwaanu Daaru Cubb demal ki ko mën ak ki koy jéem du benn the king of the the king of the